Khalifa. Mm. mais mais mais pourquoi Khalifa où les autres de Yewwi Wi. ñu jàll euh, ci benn question bi mu nekk euh, arrestation Ousmane Sonko jamono ji mu ngi cinquième jour yoo xamante ni ma nga ca Sébikotane tey tamit daal di def li nga xamante ni rek mooy euh, grève de la fin jamono ji naka ngeen di dundee lool wala moom bu fekkee gis nga ko wala ngeen déggante quelque part naka nga ñu mën a expliquer ci loolu. ma waxaat ko léegi. Mm-hmm. ku jaaxle ci incarcération Ousmane Sonko. Mhm. dese nga ko xam. ku jaaxle ci grève de la faim Ousmane Sonko dese nga ko xam. Mhm. c'est un homme très solide. bu gëm yàlla. tout ça il s'y attendait il s'est préparé en conséquence. moi je suis très serein. ma femme me dit euh, mais bi ak ni nga jege Ousmane Sonko yëpp ñu arrêté ko ça ne te fait absolument rien. Mhm. ma ne ko non ça ne me fait absolument rien. Okay. parce que bu fekkoon ni dafa jël boppam jox ma ma jaaxle parce que xaw ma nu may def bu jëloon boppam jox askan wi ma jaaxle parce que askan wi mën la ko dana. Mhm. dafa jël boppam jox ko suñu borom te suñu borom rek mën dara te li muy wax daf ko gëm dafa nekk ci moom. Mhm. politique taxul ma wax ko man ba ma koy xam kenn xamu ko parce que en 2000 en 2002 déjà. Mhm. je travaille avec lui xam naa ko il était très jeune mais nii mu mel la meloon il n'a jamais changé yàlla boobu mu jox boppam nag yàlla boobu incha allah moo koy taxaw. lu tax grève de la faim bi kon. mais c'est une façon de de yàlla yàlla bay sa tool da jox sa bopp yàlla waaye nag dafay def loo xam ne da fay mën a jaar pour génn pour tedd. Mhm. Euh, euh, ñu jàllaat beneen muy nekk Ousmane Sonko buñ ko tegee loxo dafa daal di crise dégg naa muy laajte li nga xamante ne mooy garabam di ventoline ñu bañ ko koo jox ne ko seen traitement bopp yi ngay jël ndax loolu euh, am nga ci loolu. loolu awma ci dara lu ma leer te du dëgg. du dëgg. ba yeer. Mm-hmm. waxtaan na ñu ko jege. lu mel noonu kenn wax ko il se sent très bien. mosul piqué crise. masuma yëg crise ba fii ma toog. d'accord. waxin la ñoom ñoo koy intoxiqué. man boog yëgaguma ko boog. Mhm. voilà mais grève de la faim moom c' est confirmé. de la faim c' ñu nekk ñu bëri eh, Cheikh Bara Ndiaye Pape Alé Niang euh, ak ñeneen ak ñeneen ba ci ki nga xamante ne mooy Pape Abdoulaye Touré ku ne gis nañu anam bi ñu ko jàppee dégg naa ci grève de la faim bi la bokk Yolande Camara laa déggante. Ah, mu may xam ne ils sont au nombre de quatre de quatre cent. bu bu Cheikh Bara mën naa ko confirmer parce que. Euh, parce que euh, euh mardi. Mm -hmm. mardi euh, dem naa di seet Cheikh Bara on me dit mënoo ko gis. Mm. j'ai insisté insisté ñu ne mënoo ko gis. Mm. mais bi ma insisté trop ñu ne ma. Euh, non dafa nekk ci grève de la faim donc mun loo ko gis donc je sais que Cheikh Bara mi ngi ci grève de la faim bu Pape Alé wóoruma bu kii Touré wóoruguma mais je sais que dans beaucoup de prison les gens nee nañ 400 personnes la ñu. dem waaw waaw beaucoup de gens ont suivi. d'accord ñu jàll ci Ngagne Demba Touré moom mi nga xamante ne à chaque fois su procureur génnee wax mu génn tontu jamono ji ñu ne Ngagne Demba Touré dafa daw. daw jëm fan Ngagne Demba du koy daw. dañ ko arrêté dañ ko dañ ko envoyé ndax yoon la sax moom tamit en tant que. greffier le procureur uh-huh. est uh-huh. di génn di wax loo xam ne dafay tey suñu xel avec tout le respect qu'on a nag pour lui uh-huh. mais dafay wax la parce que su procureur demee avec tous ses moyens avec ses capacités ba toog di wax naan Ousmane nee na ku dee ku dee sa yaay juraat mais le procureur là dafay def ay doute suñu kaw. Mm. Ngagne Demba en tant que juriste comme lui génn rectifier parce que nag courte que c'est payé par courte kenn gu gàtt mooy fen gu gàtt la mu wax xam-xam la ko waxee ñu am xam-xam bu ñu toll dindi ko. Mm-hmm. Demba du koy daw du koy làqu Demba Touré mi ngi intervenir fi mu war a intervenir ñu ngi déggante Demba Touré chaque ngoon mu lancé message sa jeunesse patriotique wax fi lu yàq wax fi lu ñaaw waxu fi lu bon wax fi lu jaxase Sénégal lu muy daw di làqu pourquoi parce que procureur nee na lii mënu ko lii lu tax ñu convoqué ko mu bañ kon kenn convoqué ko dafa am benn méthode bu gaa ñu jël. Mhm. da ngay jékki rek il paraît waa APR fexe ba am sa numéro rek woo la il se présente comme commissaire Sankhare ou commissaire Gadiaga ou commissaire Ndour ah euh, Mayabé vous êtes convoqué par euh, euh, à la à huit heures. lui il est dans le milieu il compris bi mu demee ba xam que il dit je ne répondrai pas à la convocation de membre de la l'APR. parce que bu fekkoon ni dikk moo ko convoqué réellement. Mhm. la DIC aurait aurait aurait communiqué sur ça. Mhm. alors ñu ñëw ci Juan Branco moom gis nañu mandat d'arrêt international bi nga xamante ni defoon nañ ko ci ndoddam ñu gis ni dugg na si dugg si na Sénégal ban moyen la jaar bi ma yebee ba seen avocat boobu dugg si ba biir Sénégal. ñoo ci bokk yam xam nga lu ci am toog di seetaan conférence presse avocat yi. gis ko di savourer di analyser jékki-jékki dégg euh, sama doom euh, sama doom que je salue au passage parce que papaam suma suma xarit la. Mhm. jékki-jékki daal di s'aperçoit Juan Branco noonu laa ko yëgee comme yéen. loolu dafay wane ni Sénégal am na liggéey bu des ñaareel ba quand parlant de Juan Branco la France qui avait porté plainte à Juan Branco au niveau de la France. Mm -hmm. le procureur de, de, français il a classé l'affaire sans suite. Ah procédure boobu mu mhm. dem attaqué à la CPI boole ci ñaari tubaab yooyu mhm. procédure de continuer la France a classé sans suite ensuite pour le mandat d'arrêt euh, international mhm. il n'y a pas lancé dañu demande à ce que le procureur approuve ko donc c'est pas en rigueur en vigueur il peut fa selon mes informations il peut pas être arrêté. parce que wu wuñu dañu rek demander réquisition. donc CPI nga xamante ni Juan Branco moo yóbbu euh, nguurum Sénégal. Euh, euh, foofu ca CPI mu mel ni ñoom tamit ñu ngi koy soofintal parce que ay maître Aïssata Tall génn na wax ci euh, ku ci mel ni tamit Abdou Karim Fofana génn na xam ne dossier ba dossier tappale la mënuñu yóbbu ki nga xamante moom Juan Branco mu ngi ne mënuñu yóbbu fi nga xamante ne mooy nguuru Sénégal ca CPI. waaw mais xam nga affaire CPI bi même même le président de la République que je salue au passage que je mhm. a fait un du caaxaan. Mhm. mën na wax ni lan fa yóbbu ci boppam lan fa yóbbu. mooy caaxaan. mais la ngeen fay yóbbu moom lañ tasee seen parti bi. non non lan lanu yóbbu CPI la mën a taxé ni dafa ay caaxaan la mais la CPI moom du caaxaan Aïssata Tall Sall je crois que dafa war a noppi. Hmm. su amee ay mbokk na ko wax mu noppi. moom mooy la plus grande perdante de la politique sénégalaise Aïssata Tall Sall qui il y a dix ans a été aimé par tous ku bokkal parti ku bokkal parti si elle est réduite à ce que bu waxee xale yu ndaw yi sax wax naan kii du wax kat dëgg dafa war a noppi. Mhm. te nag am na loo xam àddina jaru ko je n'accepterai jamais que ñu may yóbbu à ce point samay doom samay jarbaat samay jëkkër samay xam samay am di jàmm samay xarit samay sëriñ ñëpp gis ni man damay waxta lu ma wax mu nekk ci ginnaaw dëgg. Mhm. yow looy wax il a été ridicule il a été ridiculé à France 24 la semaine dernière tey mu yeewaat di waxaat Aïssa doit il doit se taire. dañ ne euh, ki nga xamante mooy Juan Branco mi ngi Sénégal ba tey ndax mu nga ko confirmer. ah ça je ne sais pas honnêtement je ne sais pas. Mhm. je ne sais pas. d' accord euh, ñu jàll ci li nga xamante ni rek mooy gendarme bi nga xam moo tax ñu teg Ousmane Sonko loxo jamono ji euh, ndax déggante ngeen saafonte ngeen wala. gendarme ban affaire la ñu am bay déggante ngay saafonte nu ñu déggante wala saafonte moom. on amul benn mu rek mooy daf ñu doon filmer mm-hmm. nangu nañu portable mm-hmm. ubbi ko mu bañ. ñu bi surtout ndax pare ngeen pour pour ko ndax. Euh, non non non non non. xam nga mm-hmm. topp ko peut-être pas parce que dafa nekk ci euh, sous le euh, sous le drapeau sous les ordres mën naa am li mu wax daf koy sant spéculation yi bari na am na yoo xam ne ma ko wax fii. spéculation bari na. Mhm. topp ko yàq xale pour lan naa du ko topp franchement du ko topp. ñu gis ni démb benn bus dafa tàkk cocktail molotov lañ ko taalee. Mhm. am ay images yu génn ñenn ñi ne nañ waa Pastef ñu